Je remercie Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chacun, chacune en ses titres et euh, grades, je voudrais vous saluer et vous dire le plaisir qui est mien à me retrouver ici parmi vous pour parler du Sénégal Idrissa ayant s'étant exprimé en français je vais moi alterner ma wax ne maa ngi am mbégte pour ñëw ci daje bi fekke ko je suis membre du F24 je suis membre de Yewwi Askan Wi et pourtant je suis à ce dialogue-là en tant que Taxawu Sénégal dama ñëw bokk ci dialogue bi parce qu'il s'agit du Sénégal dama bokk ci dialogue bi parce que je fais partie dans cette salle de ceux qui pendant longtemps et toujours on compris que lu nekk dañ koy waxtaane dañ koy doxal pour juboo ci parce que réew mi rek moo am sol Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis membre de l'opposition que vous dites radicale Aujourd'hui, cette frange de l'opposition n'est pas ici. lu tax nekku fi war nañu interpeller ku nekk ci ñun je vais essayer de tenir les trois minutes lu les cinq minutes alors lu tax ñëw ñëwuñu mooy moom moo am solo loolu lañu ñu war waxtaane parce que dialogue yi am yépp ñëwoon nañu pourquoi la défiance bi ñu manifester pourquoi le doute bi ñu manifester ba tax tey ñëwuñu man rek ma ñëw ci yeewi askan wi fekke et j'assume ça pourquoi monsieur le président loolu la ñu war réfléchir parce que du guleet ñu dialogue du guleet ñu toog di wax daan na ñëw ñëwuñu ñu bari liñ lay wax mooy dara beesu fi dara bees y a aucun sujet nouveau bu fi bees ñu ngi ci dialogue bi depuis toujours ñeent ak juróomi problème yi nga xam ni moom moo amal solo moo ñu amal solo dañ ko waxtaane waxtaane waat ko waxtaane waat ko te amul solution moo tax ñu bari ci ñoom ni ma ñun duñu dem man leen déet waxtaan nag moom du am tàyyi du am sonn da ngay waxtaan rek di waxtaan rek di ngeen juboo ñun loolu lañu gëm moo tax ñu ñëw fii monsieur le président la question du troisième mandat du lu bees il faut que ñu waxtaane ko il faut que ñu waxtaane ko mënul ñàkk que ñëpp bokk ci élection bi mënul ñàkk ñëpp bokk lu war la que parenage bi nga xam ni problème la fii day indi dissension il faut que ñu waxtaane ko mënul ñàkk li mënul ñàkk aussi mooy les modification des articles cinquante sept vingt neuf et autres mënuñu ko bañ waxtaane parce que problème la li mënul ñàkk mooy ñi nekk ci kaso yi presque cinq cent personne ay politique ak ay journalistes mënul ñàkk parce que nag xam nga réew mi su fekkee dañ ko bëgg a doxal il faut que ñu bañ ragal di waxante dëgg suñ nangoo waxante dëgg rek danañ avancer. fii li am solo mooy en tout ñun suñu teewaay dañu ñëw pour liggéey pour waxtaan pour juboo pour réew mi jëm kanam parce qu'il faut que nous rassurions ce pays il faut que nous réconfortions les populations il faut que chacun comprenne que réew mi kenn moomu ko dañ koy waxtaanee pour mu jëm kanam maa ngi leen gërëm leen sant